quartier Kër Xaali nekk fii ci Tivaouane nekk nag bërëb boo xam ni ci atum 2014 euh, ba léegi ñu ngi jànkoonteel ak ay jafe-jafe yu metti rawatina am ndox moo xam ni bloqué na bépp dem ak euh, dikk ca koñ ba indi na fa tamit ay jafe-jafe yu bëri. waaw comme niñ ko comme ni nga xamante ne ñoo ko gisandoo ñun ñëpp rek Kër Xaali chaque année même problème bi la am nawet bi bu commencé rek ndox mi day ñëw. déjà fii gis nga ñi ñu dëkkandool ñëpp seen i dafa taxaw mënatuñoo dem mënatuñoo dikk. maam Asta Ndiaye di wax ba tey ni am na ay quelques bonnes volontés yoo xam ne dinañ ci dugal seen loxo saa su nekk waaye nag ndox mi toujours da leen di ëpp doole. parfois nag dina fi am yenn ñoo xamante ni dinañ fi yónni ay camion ñu ñëw manque mais duñu jël lépp lépp ñu commencé balaa ñoo eggal ndox mi ñëwaat encore mu feesaat. non dal euh, mbir mi nag nekk jafé jafe yoo xam ni assainissement la kon état bu Sénégal war na cee dugal loxoom bu baax a baax. lii moom problème assainissement la je pense que né avant ñu doon tracé tali bi rek dañu waroon euh, lijjante mbirum canalisation ba paré parce que tali je pense que ken waru ko tabax fo xamante amul canalisation da ngay lijjanti fu ndox mi di jaar ba paré ngay soga mëna euh, défar tali je pense que l'État Sénégal doit war a tey mettre en œuvre ben programme d'assainissement assainissement boo xamante ne day day day day def canalisation ci Tiwaawan gi yëpp parce que tamit lii c'est déplorable dafa tari ba pare defoo ci canalisation bu nawet bi ñëwee ndox mi yëpp di ñëw di fi fibre donc ba euh, ndox station ndox biy jóge biir kër xaal yëpp fii lay ñëw taxi fi kon état war na cee liggéey bu baaxa baaxa baax ci di Soxna Diène Diop. daa di fay toogal kuréelu jigéen moom nag bërki démb ba léegi këram dafa am ay ndox ca bis bu njëkk ba nag ay volontaire ñoom ñoo fa ñëw ci guddi gi yëpp waaye nag euh, ginnaaw bu ñu xeexeek ndox mi ba fajar euh, fexe nañu ba génnewaat ndox mi ci mbedd mi ba tax na état bu senegal war na jël ay responsabilité démb ba tey amuñu jàmm ah, ba ba ñu génneen sama rakk bi Assane indi auto ngacc biir kër gi sapeur ñëw installé ci mbedd mi mën nu fexe ba jeexal ndox mi ah waane bi ñu demee ba ay 3 heures 25 ndox mi bënnaat ndox mi ci mbedd mi naat sunu miiru kër ndox mi dugaat fi ba nga xam ni ah, ñoo ngi fi ba 6 heures ndox mi mënul jeex après la xale yi takku rek taxaw ci taxaw ci ba ndox mi jeex daal. jafe-jafe yi ak risques yi bari na lool ci koñ bi ba tax na nag jamono ji war nañoo wutal ab canal. ñun dañu bëgg lii état rek moo ko mën a defar. dañu bëgg ñu def tout pour dindil ñu fi li ndax li bu yagge du jur jàmm amna at ma wax préfet ni ko am na benn bu daanu ci bir ndox mi ba xaw a te bobu da febaron amna fi talibé bu ñu sépé ci bir ndox mi dem nañu ba ay jamono ndox mi am fi lu mat 15 jours ñu ne amna na gi ci bir ñu bari gis nañu ko kon loolu bëgg nañu mu jëgë fi nañ ñu defaral ci canal ci digg yoon wi fo xamné bu ndox bi ñëw di fa versé état man na loolu nanu état dimbali ngir yàlla ak yoonante bi parce que lii yàgg na ci ñun sonn nanu beneen dëkkandoo bii di wax ni ci atum 2014 ba 2020 yoon wi nga xam ni euh, moom la ñu defar ci quartier Kër Xaali tax na ba ndox mi dootu fa gaaw a jóge ñuy arrangé donc euh, lii 2014 lañ fi defoon tali bi 2014 ba léegi bañ fi defee tali bi ba jóge fi nawet ba jëkk ci la sonal waaw

voilà ñu ngi woo ñëpp daal ku ñu mën a dimbali daal dimbali ñu yéen nag ñu ngi leen di sant puisque ñun amuñu fi ku ñu defal lii defal ngeen ñu ko yàlla yàlla fay leen waaw ci dara jënant bi waaw Koulingi Diane di quartier bu nekk ci xolu Tivaouane nit ñi doon yaakaar lool ci liggéey bi nga xam ni door nañ ko fa mu mel ni nag kii di Pape Malick Mbaye jiite liggéey boobu moom it wax na nit mu ngi ci woon bu baax waaye nag taw bi tax na ba ñu arrêté lépp. man nag boo liggéey bi maa ngi ci mais deux jours taw bi moo ma baare moo war ñu arrêté nii mais bu ndegam soob na yàlla bu fi ndox mi jógee rek ñu kon ne liggéey bi ah voilà actuellement ñu ngi ci liggéey bi waaw. marché la boo xam ni nag bu am solo la sama diggante ak mairie bu Tivaouane dinaa ci am nag dara waaye bari na ay risques yoo xam ni am na ci métier mi. waaw maire bi nag moo. ñoom ci Cheikh Sarr laa ko seqal daal. après ak waa Tabaay Diagne yooyu Cheikh Sarr waaw Cheikh Sarr. non marché bi ndegam soob na yàlla ñun ñëpp dañ ciy gis suñu bopp ah, parce kenn ku li ngay liggéey rek ci ñaan yàlla gis bopp ba jàppale ci ci yàlla bopp bu baax parce que le travaux bi lépp diir la parce li ñuy def nii travaux sociaux la tudd mais a garaaw parce ci suuf la ñuy dugg di def li ñuy def. <laughs> parce que boo ñun duñ dagg tol bi parce que boo daggee tol bi ba loolu dagg tol bi gars yi di na ko ndox mi ni mu war a demee bu ko dawee ndox mi dañu bëgg kay buddi kay rek ni mu daan dawee fi mu daw ko dugg ci rek comptable Pape Malick Ndiaye di Abdou Aziz Ndiaye moom nag wax na ni dañu ñëw rek ngir jàppale mairie bi ba ndox mi jóge foofa ca Koulingi Diar. en emploi euh, en collaboration ak mairie bi pour def fii euh, pour évacuer les ndox mu ngi nii koy waaj. di def ay étude mais yàlla def na ci loxo waa maire bi la tombeel ci seen nguur daal nguuru Diagne Sy mbeng surtout nag Moustapha Diagne ak euh, maire bi Massamba Diagne ñoom ñoo ñu ñoom ñoom la ñu travailler en collaboration pour exécuter cette œuvre là. yàlla def na nag atum ren bi ay dirigeants municipaux tax nañu ba liggéey bi ñu door. dégg naa ñuy def y a un projet à Tivaouane de 4 milliards et cetera mais daal exactement.

entreprise bu koy def da ngay am autorisation. liggéey bi nag mën na yem waaye ñu ngi xaar toujours matériel bi nga xam ni war na jóge fële ca mairie bu Tivaouane ngir ñu wéyal liggéey bi ndax nag nekk na liggéey boo xam ni bu spécial la. sax euh, travers sociaux def nañ yëpp fi mu nekk tuyaux yi rek la ñuy xaar ndox mi pompier jëlee ko fi ñu dugal tuyaux yi gas wuti regard sëñ Mansour Ba loolu daal la ñuy xaar. dinañu ubbil yeneeni buntu mairie bu Tivaouane ak euh, entreprise bi koy liggéey wóolu nañ ñu ba sous-traité ñu marché bi ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukki mètre yoo xam ni laataa ñëw tabaski dina pare bu fekkee ni matériel bi teew na. waa Tivaouane xamuñu woon entreprise bi entreprise bi ñun ñoo ngi ko créé en 1993 am nañu réseau de commerce am nañu NENEA ñoo ngi fay suñuy fisc dañuy fay fisc.

en tout cas ñun ñoo ngi ci chantier bi confié nañ ñu lii pour ñu évacuer eaux usées yi eaux pluviales la tudd sax. beneen habitant bu dëkk Kuli di fësal ne Kuli nekk na ci xolu Tivaouane jege lool xorom bi bokk ci quartier yi nga xam ni dinañu tab di folli. ñun lii ñu ñu ni gasal huit kàmb ñun dañuy gën a lor fii waxuma la mooy Sénégal Kuli ngi jaan fii la fii la base bi. politique bu ah bu bëgg a falu faaw nga ñëw kuli boo ñëwul kuli doo falu kon ñun lii ñu ñuy day defal ñii di ñu gondi ay 4 milliards ak man est-ce que lii ñoom jëlee nañu 4 milliards ndax lii du liggéeyu Proftico kii ay entreprise lañ ko war a jox ndax fii may Tiwaawan ku li ngi jaan ku kuy dem marché ak gaaraas ak fépp fii ngay jaar. loo yor ci lu baax fii ngay jaar heureusement nag ñi ngi sant yàlla bu baax di julli ci Seydina Mouhamed. waaye nag liggéey bi nga xam ni door nañ ko foofa li ngi Diagne liggéey la boo xam ni dayob entreprise la. métti trop mett na trop trop xet gu bon gi fii salte bi fii gis ngeen ni mu demee te ñun dana yor ay doom yoo xamante ne bi nii bu wisee rek faaw ñu génn ñoom sangu ndax xale la kon bu defee fii ay huit kàmb droit quatre. gauche 4 muy 8 ñu yor ay xale yoo xamante ne bi kon lii ñun nañ ñu dimbali te yàlla tax ñu defal ñu fii génn ñu xet gu bon gi ndax fii mooy kuli ngi jaan façon baax baax bépp fii la nekk kon nañ ñu ci dimbali te yàlla tax waaw doomi kuli nag ñu ne ñu ngi mumbale wu ñu nag. di xaar. metti na lool salte bi ak euh, xeet gu naqari gi xale yi foo ci biir ndox mi bay daanu ci euh, kàmb yooyu ñu fa gas. ku li ngi Diagne daal mérité wul lu ni demee. gis nga salte bi fii poste courant bi gis na ni mu demee nii fii lii ah potolaan bi barki démb bi mu dee wis dañ génn ay étincelle te wóorul ak ndox meeg kàmb geeg yooyu kon ñi ngi ñaan ngir yàlla nañu autorité yi dimbali te yàlla tax. defal ñu ñun suñu quartier bii Koulingi jaan beneen dëkkandoo kuli bi di wax ni nag projet bii nga xam ni moom moo war jële ndox mi fii ci Tivaouane projet 4 milliards la ci suñu xaalis méngowul nag ak chantier bu ndaw bii nga xam ni moo am fële ca Koulingi Diane day niroog rek marché yaama neex waaye nag liggéey bii daal entreprise bu mag moom moo ko waroon a liggéey. mooy ñoom lu tax ñu génne 4 milliards jox ko gars te gars yi xam nañ ni chantier bi tollul sax un milliard noo xamante ni bi bu tawee rek crédit bu ndaw la bu tawee rek fu yi romb jaar bon crédit bu ndaw la bu tawee rek fu ndox yi jaar ba nga xamante ni bi bon gars yi nañ fa mën a jaar jakarta yeeg xam nga ñu mën a liggante gi seen soxla quoi xam nga yaa ngi dégg loolu rek lañ ci soxla woon mais génne 4 milliards jox ko gars yi ah yow tamit la neex la ñuy def def leen neex rek def leen neex rek xam nga ni 4 milliards nga yëkkati ko génne ko jox ko gars yi ah te mooy li ma la wax projet mën nañ ko jox entreprise yi boo xamante ne bii ku ci nekk voilà li nga ciy jariñu sax mooy la nga daan la nga daan jariñu ah mais jox ko ñoo xamante ne bii mooy loolu ah vraiment da ngay waaru d'accord ah. reportage Cheikh Ahmed Tidiane kan Boubacar Fall montage Pape Ndongo Pouy Dabakh FM TV